Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na dellu nag jëm ci wax firndey rawam gi mu raw bu jite gaañu na est-ce Tuuba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. noo nuyu bu baax tey siyaar eh, sunu mbokki waa Touba TV yi nga xam ne dañoo jugoon tey fekk si nu sunu bir kër ci bisu korité gi isafon teg ñun ak siyaaranteeg ñun muy lu ñu bëgg lool eh, di ñaan Cheikhul Khadim mu fessel seen obligé bu baaxa baaxa baax eh, di leen siyaar ñom ñëpp di ko jaare ci seigne Mbàkke yu fay mi nga xam moy jëwriñ ji wacc ci ci képp ko ya nga fa di fa liggéey nu am mbégte lool tay ci fekk ci gi ngeen fekk ci bisu julli gi nuy ñaan sëriñ bi fekke ko at yu baree baree bari te mu nangul nu sunug jaamu yàlla koor gi nu génn lépp mu nangul nu ko te fulandil ko boole nu ko ak jullit ñépp mawtu lazina kabaduni badalu min mawti nafsi maanaani jaddalu tursi an mawti baqaawu lay abu xaani allahu li wajin lay kafaani albaaxi mamaata sarmada wa bi baqaayi su rahmana waaw nak, mom, nag moom euh Lansar la bo xamne si ne alhaaji Madaawur Gueye mooy way juróom wu góor soxna Roqeetu Ñang moy way juróom wu jigéen euh, muy ndonga su xebu so xamne ne nak bam gane aduna ba legi ci njangum khassida lan ko massa tagat ak ci lu bax rek jaamu yalla ak liggey Euh, loola bàyyiwunu ba nu dem isbu tarxiya jamonoy 93 94 95 lu ko jiitu sax kër gi moom këru xasida la masa doon euh, bin jógee isbu tarxiya it te li sabab jóge fa di ndigalal Cheikh Basirou Sarr jaamu Sëñ Tuubaa gu mu joxtu nu taxawal daayira ci biir kër gi sama baay digal ma mak sama mag ju ci ak sama rak di ma gue géy ak sunuy rak ñu dañoo bëgg comme yéen seenum xel màcc na ci njàngum xasaayit ngeen yamandi ci kër gi di jàppale xale ci njàng meeg loolu ba na dëkk di luga fu fi daayira sosu rek lansaar nga xool ñu taxawal ko tax nga sos ab daayira yawit membre lansari di fi jóge di répété li nit ñi ci gox bàyyiwunu benn yoon ban jóge fi tukki Afrique du Sud def nañ fa juróomi moom it nekk ca kuréel ga ca njàngum xasida ma ca ña koy jiite ndax ni la ko waxee kër gi moom këru xasida la mosu noo noppi di jàng xasida yi li waral nag nit ñi di dégg Ousseynou Gueye ak di ko seetaan ci télé bi ca e, Afrique du sidd la bàyyi ko e, la ko sabab mooy moodu moodu ku ne xam na ni mu ñàkke jot ñu am fab daayira nuy jiite répétition yi waaye ñàkk jotug moodu yi tax léeg-léeg ñuy wuute léeg ñu war a guddi ajjuma gaa yi dem ci foire yeeg yu demee noonu te comme nin la ko waxee nun mënunoo muñ njàngum xasida ndax xëy na su nattu la euh, loola yu xiir ñu ci buñ ñëwee guddi ajjuma léeg-léeg euh, nit ñi manqué ñu wàcce dol yi daal di teg pupitre takk sunu digg di jàng di rajas ngir nin la ko waxee ñàkk mën a muñ toog te jàngunu xaside yi loola mu indi tey sunu daaju bopp bii nga xam ne si ne moom la ñu am te jële ko ci ci ci foofu wéetaayu ñàkk a mën a tey am kun bokkal kuréel daanika tax nuy takk sunu digg di ko defal sunu bopp ba sëriñ bi dimbali nu ci suñuy air yi bopp ak yu demee noonu tax àdduna euh, bi di dégg Ousseynou Gueye wasallalil haqu min alhaqi almubin لي خاد ما بان وما ليس يبين وسل لي لق من الحق المبين لي خاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينحساتي جالب النيران أو جالب العارين في الغسران لم ينحني درر النار الدنيا السن الباغي بغير ثنيا ملكني ما لم يبعو عني وغادني بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني بي الجنان مصنفاني محاممات خنها نفوسا lu baax moom doo ci jug dëgmal dara rek su la ko yàlla nangulee te du am ay pakka ki ndog ndog yoo xam ne si da koy teg sa kanam waaye nag doo ko jàppe sax nag ay ay ay waaw doo ko jàppe daal lu metti ndax dangay ngay xam ne rek lislaam moo sosoo noonu rasulullah bam ne mo yoni boba booba daanika la noppe woon am jam ci ay mbokam ku fi massa taxawal lu bax rek say mbokki bop wala sa sa dekk taxaw nan indil la jafe-jafe ak yu démé nonu ñun nak wax deug yalla am nan tuuti jafe-jafe waaye sant nan serigne bi ndax wax deug yalla gox bi nga xamné ci né lan tambalé jangum khassida bin ko tambalé leg leg damay wax ne li dal kat yu bari dalagu nu nax fii nu tàmbalee sunu njàng mii nuy jàng wax dëgg yàlla fi la nu jàppe jàpp goo xam ne si ne jàppale nu fi jàppale goo xam ne si wax dëgg yàlla kawe na njort jàpp woon ne dana deme noonu ci sunu njëlbeen kataba allahu wa taala anna baytallahi alharama anna baytallahi alharama tarfahu almalaikatu ila tuba léeg nga war a jàngi foo xam ne si da ngay am jafe-jafe bu wara way léeg-léeg nga dem ci barab bo xamni ci si ne da nga fa tok ba guddé fa lol do xam noy ñibé ak yu démé nonu yoyu yu yu yu mënta ñak lay doon yeeg-léeg yo xamni ci si ne ci njalbeen dañuy dal la li ben histoire bu eh, am ak sama ben rak bu ñuy wax Baye Serigne Gueye momit di yëkëti xaside yi nu wonu bis di nu jangulo ay jang fi ci dekk yu ndaw yi ci bori Louga Euh, bi ñu demee ñu nu taxi ñu war dem jangi bi ñu banopi ba nopi sëriñ bi wonu bi ñu ñëwee mu talal lon suñuy loxo nu talal mu ñaan tëfli ah ñu daal di génn fas yéenee xool nag nun nan la ñuy fexee ba ñibbi siwaat ci biir Louga nga xam ne une du matin deux heures du matin bi nu fekk nu taxaw man ak mom ci kaw tali bi di arrêté lu nu mën indi ci ci ci dëkk bi ba ab camion momu mujj taxaw daal ñuy jël indaale nu yooyu di yoo ciy dund waaye nag léeg-léeg da nga koy sant yàlla xam ne dara lu baax daal yombut tarfahul malaikatu ila tuuba wa fihi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama maha aminil wahilaay wa yadxulu fi mahahuma alkatibu hadi alhurufi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu gën gaase li nuyoo bu baax te di leen sant bu baax ci defin yi ngeen def ak ñëw bii ngeen ñëw fii lii am na cant lool sant nañ ci bu baax a baax a baax baax nun nag dañuy sant yàlla ndax lii rekk mooy sunu bëgg-bëgg boo gisee dama ko soññ ne ko na nga góorgóorlu ci xasaayid yi ndax man ka xasaayid yi rek laa daan jàngal kilifa yi jàngal naa ko sëñ Fallu Mbàkke jàngal naa ko Cheikh Murtada jàngal naa ko sëñ Dan Xariloo sëñ Dan Mareema Daam it jàngal naa ko ko sëñ Dan Xariloo moom sëñ Moodu Musta Mbàkke jàngal naa ko ñu bari jàngal naa ko sëñ Ibrahima Mbaye mii nga xam ne mooy mooy mooy xalifa maam Cheikh mbay loole nag ba ma demee ba nga xam ne nag léegi jëm naa ci mag ma daal di ma daal di ne nag ala Ousseynou yow na nga jël njàng moomu bu ko teg fi suuf na ko na ko na nga ko continuer ndax loolu rekk am solo xasaay yi bëgguma mu dakk moom itam mu ngi ciy góorgóorlu bu baax jàmbaar la ci bu baax a baax a baax ba tax na noo ngi sant yàlla daal sant nañu bu baax a baax a baax a baax a baax. Euh, Baye Madawar Gueye lii moo nekkoon liggéeyam lii moo nekkoon mébétam kon sëñ Ousseynou Gueye bu ñëwee ci loolu di fésal loolu kon aaye boobu ñu jàng léegi loolu da koy dëggal kon ñuy wax naan lu juddoo cim tàgg bu naawul jaaxali mbokkam moom mooy lii. Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na jug leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal xam ne borom Touba yi borom Touba jug taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba yi borom Touba bu leen ma tànqal ni ngeen cellal. ku jog na ni jël ta bañ di tan xam lu ngeen xam tay borom jisan te mom, ma leen di yeggal lu bet gisoon la bon mom dafa wax Balla ma ca Ndar ab talibem la mu ne ko amul kenn ku man waxi Cheikh Samba jaara mbay mu ne ko kañ mu ne xarit bu ko man mu ne ko fexeel ba ba andil ma ko ma daal di ànd moom ñëw Touba ñu neen sëñ baa nga ndindi na fekk ko ndindi ma di ko ko jàngal keroog di ko jàng ba gàgg mu naan ma jàngal tuubaa ma daal di jàng Touba jóg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen daal di xam ne borom Touba yi borom Touba nga xam ne xasaayit googu la loolu laa ko jàngal mu fa band ya jox ko taal nekkoon nañ ko yóbbu ca rajo ba waande noonu la noonu la demee sëñ bi dambay mii itam noonu la demee dafa ne ndongo ndongo sekk ab taalibeem ndongo xanaa ka ku man wax Cheikh sàmba Diarra amul ci réew mi mu ne ko aha kañ am naa xarit bu ko man mu ne ko fi xel ba indil ma ko ma ñëw mu wax ma ko ma ne ko ah kooku de sawar naa ci jàngal ko ndax sama kilifa la daal di dem jàngal ko keroog falaa yendu ba ngoon buur yàlla mooy sunu buur yeneen bi mooy sunu njiit bambaanu boot bis ba nun soppey borom tuuba yeneen ba jiitu borom tuuba tafal gannaawam doy na yaakaar liggéeyal leen borom tuuba doy na yaakaar liggéeyal leen borom tuuba alhamdulilah man jox naa samay aajo xutbub jamono bi feeñ muy faj samay aajo sëñ fàllu ca ndindi xaw ma daf ni wooy Cheikh Samba Diarra Mbaye yooyu de damaa bëggoon ku ko fi xam ñu wooy bàyyi ma daawur bàyyi ma daawur yëkkati loola jóg taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen daal xam ne borom Touba borom Touba bu leen ma tànqal na ngeen cellan ku jóg na ni cel tabandi tànqam lu ngeen xam tey borom Tuuba peeseef na ruuxam mu wat luy ruuxi ñoon jamonaam mu jiite gaaya la géeyal leen borom Tuuba peeseef na ruuxam mu wat luy ruuxi ñoon jamonaam mu jiitu gaaya la géeyal leen borom Tuuba yonen ba may na ko yoy yoneen ya ñoo ko amoon mu doon yu tas tey da koo booleel borom Tuuba yoneen ba may ko yoy yoneen ya ñoo ko amoon mu doon yu tas tey da koo booleel borom Tuuba bàyyi mbindee fi jikkoom yoneen ba moo ko jagoo mbooloo mi yërmande mooy jikkoy borom Tuuba bàyyi mbindee fi jikkoom yeneen ba moo ko jagoo ma noppi baa may tawat muy faj sama yaajo diggantaale ki kër laa fi man mu di benn fu ma fi tol ko woo muy faj sama yaajo Cheikh Samba Diarra way diggante weete ki wétal ak beroog jaxaso sunu digënté du dog moy faj sama yaajo diggante weete ki wétal ak beroog jaxaso sunu digënté du dog moy faj sama yaajo subhana rabbika rabbil ghadati amma yasifuuna wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين